En tant que bon citoyen, j'écoute la radio citoyenne. RMD 95.5, émettant depuis le building communal de Dakar.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

mbokk kitabu wa dua njeriñam upp na njëgam juromi junni ngir faj sa waduha yalla mo ci giñ yor yor la léppay leer alaaji Mamadou cisse Mara wa gol allahumma salli afdal salatina ala asadi makhluqatika sayyidina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 waaye tamit di le 24 janvier 2018 fa tabaarakallaa nuy sant yàlla bu baax ndax jotaay bi mooy jotaay bu njëkk si atu 2018 boo xam ne bi moom lañ def si mission Wadduha si rajo municipal de Dakar RMD 95.5. ni ne aadoo rek daan koy def mooy dañu ñaan fépp foo xam ne kaddu àgg na fa nu jàng fatiha jàng la jàppandi si xul huwallaahu ahad gannaaw ba nu ko du xaddiyaale sallallahu alayhi wa sallam nu xaddiyaal ko bépp néewu jullit boo xam ne ma nga barsàq nuy ñaan yàlla yàlla yokk a beesal yërmande sa ñoom yàlla yokk bee seen njëggal sa ñoom waaye di ñaan yàlla yokk leeral seen gannaaw noonu la ñu siyaara sunuy kilifa yi dina yépp di leen wàcc seen wàccuwaay gannaaw ba nu sàkkoo seen ñaan di taasu ci seen barke nu leen di ñaanal yàlla yàlla di yokk guddal seen fan lool fa la waaye yokk leen wér tabarak tabaarakallaa mu melni ki amna xew-xew yu bëri yu fi jaar yo xamne bo ba legi émission Wadduha jotu si woon na barkeelu mu melni ki dëddu bi nga xamne sunu baye Cheikh Sidi Makhtar Mbacké di khalifa séné doonoon xalifa général des Mourides làq na si sunu kàddu muy Wadduha ak képp koo xam ne njabootu Wadduha la nu ngi yees yokk yeesal seen njaal si sëriñ Mountakha Mbacké ndax ni ma ko waxee rek fa tabarakalaa kilifa la goo xam ne fa tabarakalaa umma islaam bi yëpp macha allah la fi nekkaloon kon si kàddu yi nu ngi yokk a sëriñ Seex Sidi Maxtaar Mbàkke di jaalay xew-xew yi nga xam ne jot na fi am muy xam Casamance nga nga xam ne ñoom la yàlla dogal nu làq woon fa wante fa tabaraka laa ndokkeel <coughs> si at bi nga xam ne moom lañ dugg muy 2018 xamna di ci jiital radio bi ndax li ni wax rek moy ndiak mi radio municipal de Dakar 95.5 nga xamne allar àllarba bu nek rek fi tabarakallah den fi wetti konté soppe Wadduha hay ni ngeen koy amé mercredi ngeen man di am ay rediffusion yi mo xam dimanche la mo xam mardi la mo xam vendredi. ndokkeel rajo bi waaye ndokkeel ay kilifaam ndax dinañ faral di wax ne lu yàgg dëgg la te si <coughs> janvier bi laa am ak ñoom ñaari at nu ngi fi njëkkoon a def émission le 13 janvier 2016 defe naa loolu mu ngi bëgg a doon ay fan te fa tabaarakalaa lépp rafet na na ma koy waxee rek fa tabaarakalaa mosuñu. jubbanti si dara te loolu macha allah yaatal gu nu gun nu fi yaatal la kon nu ngi ñaan yàlla yokk si kër gi di rajo municipal de Dakar yàlla yokk fi xéewal yàlla yokk fi naataange yàlla yokk fi sutura yàlla yokk dëgëral ñi ko jiite yokkal ay xéewal ca mit ñi fi yëngatoo ñëpp fa tabarakala yi domaine bu nu mën a doon rek nu ngi leen koy ñaanal fa tabarakallah sunu technicien bi nga xam ne moo ni wettali àllarba bu si nekk muy sëñ Malick moom it noo koy ndokkeel bu baax si at bu bees bi di koy ñaanal yàlla yàlla yokkal ko sutura gannaaw loolu di nuyu tey siyaara soppay Wadduha yëpp xam naa danu si jiital sunu wëllëre bi nga xam ne moonu daan wettali mercredi bu nekk di Mouhamed Amine taxa te yàlla def mu nekk si tukki bu xaw a gàtt moo xaw a génn dakaar dañ koy nuyu siyaaraka ndokkeel ko ndokkeel koy si gan gi macha allah di ñaan yàlla barkeel seen ànd yàlla defal leen si njaboot yu bari te barkeel defal leen si wërsëg tamit di nuyu sunu mag tabarakallah di sunu wëllëre di sunu xarit alxaaji xaadim rasul géey bu wadduha point org fa alxaaji xaadim dafa liggéey lu rëy rëy si wadduha gën ko àggale it fu kawe njort ndax fu nekk si àddina bi fa tabarakallah nu nga fay ubbi site wadduha point org te loolu lépp fa tabarakallah yi mbaaxam la ak yaatoom la ak yéene boo xam ne am na ko si ñun waaye yéene boo xam ne am na ko si wadduha nu di koy ñaanal lu bari comme ni ma koy waxee rek ne ko yàggam fi moom njariñu jullit yépp la yàlla yokk ko fi yàggal lool fa tabarakalaax waaye yàlla yokk ko wér du koy ndokkeel bu baax ci at bu bees bi muy 2018 association Wadduha te seen kilifa doon Adja Aram Ndiaye bu nu ko tuddee rek dañuy tudd ñëpp fa tabarakallah ñëpp képp koo xam ne yaa ngi si Wadduha rek fa tabarakallah nuyu nan la siyaara nan la ñaanal nan la waaye sàkku nan sa ñaan ndax nanu koy waxee rek dafa am loo xam ne kenn mënu koy jënd te mooy cofeel dafa am loo xam ne amul njëg te mooy yëg te looloo dox sama diggante ak ñoom ndax macha allah bu leen sooboon ku si nekk toog sa kër jàpp sa njàmbur waaye yéen macha allah doon mbooloo moo xam ne dañuy wuyoo Wadduha di yëgante lool ci seen biir di demlante di dikkalante waaye di dimbalante it loolu fa tabaarakallaa mbégte gu rëy rëy rëy lan mu si am di la rekk yàlla <coughs> yàlla gën a barkeel mbooloo bi ci barke Wadduha yàlla yokk ci ay xéwal yu yaatu yu kawe sa njort ba nanu ko yéene rekk nga xam ne fépp fu nu dégg <coughs> foo xam ne war nañ fay mën a def dara rekk nu njëkk fa gis waa association Wadduha ndax seen xol ak seen yéene gën na kawe foofu mooy tax dañ leen ñu ñaanal si barke wala sawfa yuxtika rabbuka fatarda yàlla gën leen a barkeel yàlla gën a barkeel seen mbootaay googu muy Wadduha solidarité sunu xel di dem si ñëpp nag di nuyu ñëpp di leen siyaara te di leen ñaanal di nuyu yaayu xaa di koy ñaanal yàlla yokk ko wér tabarakallah di nuyu ñi nga xam ne nooy dëkkandoo yi ñu nekkandoo ñoom géejawaay Babacar Cissé nu ngi koy nuyu bu baax di sunu mag di ko nuy jàppale lool fa tabarakallah moo xam Omar Diallo la moo xam Malick Sock moo xam Alla Gajaga moo xam Babacar Cissé moo xam Badiane ñoom ñëpp fa tabarakallah ba si faatu Badiane ñoom ñëpp nu ngi leen di nuyu di leen siyaara te di leen ñaanal di nuyu butig Wadduha yaayu Mouhamed nu ngi bu baax fa tabarakallah butig Wadduha point 1 nu ngi leen nuyu bu baax di leen siyaara di leen ñaanal di leen masawu tamit ci coono yi butig Wadduha Kër Massar soxna maam jaara nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal waaye boutique Wadduha bu Mbour fa tabarakallah sunu jigéen madam ñaa moom it nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal yàlla yokk ko xéwal di seet booy tawat yëpp <coughs> nanu aadawoo di koy def rekk ci barke allahu saafi yàlla saafara tawat yëpp ndax moo ko man dinaa koy wax ne benn doktoor mënula faj waaye benn sëriñ mënula faj kay faj mooy jalla jalaaluhu mooy allah dinaa di wax ne nam na jaam di sababloo mooy tax su soobee yàlla mu yónnee si tawat nga ko tawat demal ci sama mbindeef sàngam nga dugg ko su ko duggee amaana biir ba lay jàpp amaana feebaru bopp la amaana tànk la amaana tension la amaana leneen ak leneen ak leneen ak lu mu mën a doon rekk te tudd tawat te tudd tawat ak fu si jaam mën a toll rek nay delloo am yaakaar si ne saa yu soobee yàlla su ne sama jaam baal ma sama mbindeef sàngam tawat dana dem mooy tax toujours rek na ma koy bu nit di mas di ñàkk yaakaar mooy tax may wax ne ku si nekk sañ nga ko sañ nga ne gëwuma nangam amul mom xaj na ëpp nay wax wala man duma ko wax sañ nga wax ne gëwuma feebar bu mënula wér ndax kenn du sabab lu di sàkku tawat sabab ka la koy teg nag muy borom bi saa yu ko sawee mën na koy teggi te baraana loo xam ne bii yàlla dina koy teg mbindeef te fekk daf koy raxasal lu bëree bëree bëri fi tabarakalaa nam koy raxasale mooy dina di faral di wax ne kii yore or dugal ko sa taal ba du dafa bañ or waaye dafa bëgg mu gën a rafet mooy tax baraana tawat yoo xam ne du ñàkk muy coobare borom bi waaye muy nattu jaamam ba xam fan la ko toll dinaa di fàttali ñu bëree bëri bëri ayuba saabir fa feebaram ak àggoon man mosuma koy gis waaye mosuma ko déggit waaye ba ma soobee yàlla lépp dellu si na fa tabarakallah kon nu ngi ñaan si barke allahu yàlla woyofal yaram yépp at mu bees mi fa tabarakallah muy at moo xam ne wér ndax dinañ di wax ne xéewal yi xéewal ak dund doomu aadama xéewal bu mu mën a am rekk wér moo sa dàq fa tabarakalaa ak lu nit mën a am te manki wér manki na lu bari fa tabarakalaa dafa ngeen ne ki nga xam ne bi yàlla may na ko compte bancaire yu bëree bari yàlla teg ko tawat boo xam ne biit amaana soo ko joxoon benn kaas kaasu som bi du ko mën a jeexal te lu bëree bëree bëri tere nañ ko ko ba mënatu koy xewlu walla amaana bu demee ba la nga xam ne bii moom la nit di def pour mën a yëg boppam mën a woyof moom bala koy def fawat mu dem si barab nu sonde ko mu mën a gaanuwaay wala mu mën a tuur ndox wala lenen, wala lenen, wala lenen. motax fu dom état bu dom adama man tollu rek nan koy waxe toujours nay sante borom bi tay ñaan mu yok fa nga tollu santal bu baax nak dina di wax ne fu nit tollu rek su gestoo dana gis ko xamne dana danaan suma melon ni diwo tektal bi macha allah soo tukki rek dang sa xam dara amaana soo yoree sa benn daamar nga xaw koy doyadil du ñàkk si yoon bi bala ngay àgg lu bon bon dina am koo xam ne bii soo ko rombee moom dootul xool bosam sa bos lay xool te loolu du man di ñàkk ndax defe naa ku yore oto boo dub lu bon bon mën nga doubler borom welo te borom welo boobu soo ko tànnaloon welo mbaak oto bi amaana moom lay jël kon yow bul xool ki la gën rafet le oto wala mu gën la ko leneen xoolal si ki nga xam ne bi fa tabarakallah àggagul si amee oto mu ngi toll si vélo jàngale la rek fa tabarakallah si ne jaam nay sant toujours te ñaan yàlla dolli ki nga xam ne bi fa tabarakallah xëy na tàllal cëram yëpp nangu macha allah mu jóg tànk nangu macha allah loxo nangu bët nangu nopp nangu làmmiñ nangu loolu lépp fa la mbir la yoo xam ne bii su ko suñ ko sa doon laaj facture amaana du koy mën a motal te bu gestoo tuuti rek du ñàkk ma gis jàmm boo xam ne yooyu ma tudd am na yu ko si yàlla xañ te du tooñ gu mu tooñ moo tax yàlla xañ ko loolu kon nan di gën a baril cant gi gën di wàññi njàmbat nan di gën di sant yàlla ak état bu nu mën a toll rek nan sant waaye ñaan ñaan ko mu dolli fa tabarakallah la in sakartum la asidannakum sant dafa am solo lool fa waaye dara doxut <laughs> ëpp na di wax te yow mi koy wax am na ko loon mu ngi sa état boo xam ne bii macha allah ma nga lay ñee yow mi naan dara doxul nan koy waxee rek su dara doxuloon dinay doy waar ndax lii dara dox mooy tax saa yu nu xewloo bu subaanu soxlaa xewluwaat def naa bu doon dara doxul bu nu xewloo amaana dana duñu mën a gaaw a soxla leneen fa tabarakallah di gannaaw bi nu seete woy tawa di te ñaan yàlla at mi mu doon at boo xam ne bi macha allah yàlla day yokkal ñépp nu am wér niñ koy wax nag feebaru physique dafa am te mooy yaram bu jagadi waaye feebaru jamono it fa te mooy ñàkk nuy ñaan yàlla yokk koom si ñépp fa képp koo xam ne yaa ngi xëy di sabablu yaa ngi xëy di yëngatu si dara loola nga yëngatu suñ borom barkeelal la ko ba nga mën si am sutura lu ëpp di xeeb la wala lu ëpp di bañ a ñaan la te mooy sutura ndax si la lépp nekk fa tabarak la nuy ñaan yàlla suturaal ñépp foto barak la mooy tax boroom kër saa yu xëyee soxna ne ko dépense sutura danay tax mu ne ko dépense ngi waaye saa yu doom ñëwee ne ko sama faye école sutura danay tax mu ne ko sa faye ngi nii sutura dinay tax bu àggagul si am këram saa yu borom kër fëggee wala ne ko la cinq wala le dix jot na sutura danay tax mu ne ko sa location ngi nii waaye sutura danay tax saa yu yaram jagade fa tabarakallah bu laajee ordonnance sutura danay tax mu mën a jënd ordonnance waaye waaye barak tabarakallah lu ko mën a gaar tamit si dundam sutura danay tax loolu mën a saafarawu tu ko am sutura rekk am nga lépp ndax àddina moom kenn mënu koy matal dinaa di wax ne tabarakallah ka yore lu bari day xaw di tolloo ki nga xam ne lu tuuti la yor si naka si mooy kiy joxe dépense su si misaal cinq mille francs ak ka nga xam ne bii fa tabarakallah la muy joxe sa moom rek lay yem su paree ku ci nekk la la suur rek mooy sa wërsëg nekki ki nga xam ne bi ma nga ak am mu am ay appartement yu bari guddi bu ci nekk mënula nekk si néeg yépp si benn néeg rekk lay mën a nekk waaye tamit si benn lal rek lay mën a nekk lal ba sax du ko feesal si xaaju lal ba lay nekk daf koy yem ak ki nga xam ne yàlla dafa dogal si moom mu amee benn néeg rek kon fi tabarakalaa yal na yàlla may ñëpp sutura fi tabarakalaa ba nga xam ni ku uti rek am dina la yomb ndax nan koy waxee rek dinay gën di dalal xel mu bir la ne fi tabarakalaa suba wala semaine bi yëpp wala weer bi yëpp wala at bi yëpp fi tabarakalaa yàlla mën nay def sutura ba saa yu ma xëyee. la war si man ak la war si njaboot gi yépp ma man koy def ndax lan wax rek xawoon tuut dan ne ki ñàkk xaw tuut rek ka ñàkk kéefar dab ko si naka may ko ñàkk man nay tax nga gis loo xam ne diine mayu la ko ngor mayu la ko waaye ñàkk danay tax nga dugg sa ñàkk danay tax nga def ko kon nu ngi ñaan yàlla at mii di 2018 muy atu koom muy atu nataange muy atu sutura waaye fa tabarakallah nu koy ñaanal sunu jigéen yi sunu doom yi sunu jarbaat yi yàlla ñoom ñëpp fa tabarakallah yàlla may leen sëy ñi nga xam ne toll nañ si tàmmagun sëriñ ndax nan koy waxe rek xéewalu soxna dinaa di wax ne la sa jiitu mooy sëy walla bokk war na bokk si si jiitu ndax si loolu rek la mën a amee njaboot te alal yépp njaboot si gën kon nu ngi ñaan yàlla muy at boo xam ne fa tabarakallah soxna yépp yàlla dana leen jàppandal nu am sëy ñay seeni borom kër tamit na ma ko waxee léegi rek yàlla dafa leen sutura ba lu ñu yoree seeni soxna jàppandi ñu ñaan yàlla yit mu doon atu juboo atu booloo commencé si kër yi dina koy wax ne da nga di dégg yenn saa suñu waxkat yi di wax ne pili de quatre cent nangam parti politique mu ngi fi tegtal la si ne boo seetee ay at si gannaaw danga daan dem benn kër kër ga la muy rëy yépp benn njël lay doon waaye léegi mën nga fa dem muy nangami njël ñàkk boole yi kon booloo gi kon ñàkk booloo gi kon mën na nuy wax ne sa dëkkuwaay yàlla tàmbalee si kër ya gis macha allah nan daan wax ki nga xam ne bii macha allah soo dawaan jëm sa moom legi bo moytul mom ngay gëna ragal wala mom ngay gëna a moytu te loolu lépp jikko ki indi dama dem ba nit man nga bok mom day ak te su tëboon jox la ndox ah ndox mi mu ma jox xawma ndox lan la wax yeesu billah kon asta ki nga xam bi ma sha allah leneen la si yow rek rek war na noo gën a defarwaat gën a defarwaat fa tabarakalaa gën a roy si bàyyeek maam yi ñuy ñaanit fa tabarakalaa ñi nga xam ne nu ngi ci loxo yàlla bette leen ixlaas te mooy ñi nekk ci prison yi ndeysaan bëri lool ñu si wettali ko maa ngi fàttaliku am na benn mbokk keroog bi mu amee garaasam bi nu gisee dafa jooy ne ma lii dama ko mësoon yéene sama dund ba toog ak Mara mu ngi ñaan kon ñi nga xam ne danoo nekk si loxo yoon te muy barab nattuwaay ndax la ñuy wax rek ku jàmbar rekk danga fekke te nit mën na fay nekk. ma nga fay nekk nekk ak sagoom yore bakkanam te amaana su doon foofu mu jamono yooyu foofu mu nekk nekku fa amaana lu gën a rëy loolu mën na koy gaar ndax defe naa baraana ñoo xam ne ku leen waxoon ne dem bar sàq nga nekk si loxo lu la gënal amaana dana tànn kon naa nekk si loxo misaal la rek si ne barab la boo xam ne barab bu nattuwaay la kon ñi yàlla dogal ñëpp nu nekk ci loxoy yoon ñu ñaan yàlla bette leen ixlaas ñi nga xam ne noo tooñ nekk fa fa tabaarakallaa yàlla yàlla def lanu defoon bu nu amee ixlaas mu dëddale leen nag loolu ñi nu tooñ tamit fa tabaarakallaa yàlla leeral lépp ba nu mën a moomaat seen bopp ñi nga xam ne noo daane seen doole bitim réew ñoom it doon soppay Wadduha lool fi la mi ñi nekk bi tim Sénégal ak fu nu mën a nekk ci àddina bi doon ñuy wettali ko lool Wadduha ñoom it ñu ngi leen di ndokkeel di leen ñaanal di leen siyaara si at bu bees bi di ñaan yàlla sàmmal leen kër di ñaan yàlla sàmm leen àll di ñaan yàlla fa tabarakallah lanu fa uti si koom yàlla jàppandal leen lépp waaye ñu nu bàyyi fii tamit yàlla sàmm leen ba lu ñuy dégg rek muy doon luy dal xel ndax dina koy wax nga xam ne macha allah dañuy faral di jokkoo ñoom lu bëree bëri si ne bokk na si nattu yi nga xam ne bi nattu borom bi la. mooy ki nga xam ne balay mën a am wërsëg rek faaw wat mu génn ndax bokk na si lay gën a bokk na si xéewal yi sallallahu alayhi doon wax mooy ki nga xam ne mook moog wërsëgam moo dëkk kom fa sa njaboot nekk fa la sa xéewal nekk fa la sa wërsëg nekk fa tabarakala kon mu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yokk leen ay xéewal yu yaatoo yaatu seen émission Wadduha tey di 24 janvier 2018 doon émission bu njëkk si atu 2018 ñu ñaan yàlla fa tabarakalaa na ni ñaanee suñ naree ñaaw ëpp nay wax ñuy <laughs> ñaan muy atu xéewal atu sutura atu barke atu naataange atu booloo fa tabarakalaa si bépp domaine boo xam ne moom la doomu aadama nekk te muy lu yàlla lu diine gërëm ak ngor fa tabaarakallaa yàlla jàppandal lépp ba mu sotti ñuy gën di am yaakaar tamit na ma koy waxee rekk nuy gën di dellu ci yàlla na ma koy waxee si ne yàlla mooy yàlla yaa ngi doon dégg yenn saa yi am yu nuy seddale naan at mi atum nàngam la nangam na dina nangam yooyu yëpp dama njott na ñi nga xam ne yàlla may na leen daraja yàlla may na leen martaba yàlla may na leen kasfu ba nu mën a xam loolu ba nu xam loolu du nu doon ñuy wax defe naa ñu bari daanan fàttaliku yenn saa yi kilifa wax ne nan génn sarax sàngam walla nan génne dog sàngam ñaanal ci réew mi muy doon luy ëpp di xet nag ndax bari na si ñoo xam ne bii Sénégal yàlla baax na lañ ñoo xam ne luy war di ñëw ci senegal rek du ñàkk yàlla dina la am lu mu leen si wan mooy tax lu nu sant rekk si ay njéggalu ci ay ñaan ci ay sarax lu si jullit man rekk na ko def li wàcc xillaa ñaanal si boppam ñaanal si réew mi ndax ku ñaan rekk war ngay ñaanal réew mi ndax nan koy waxee réew mee gaal gi te ñu ñëpp nu ngi si gaal gi incha allah bu àndeek ak dogul yàlla su demee ba vingt-trois heures da ngeen mën a wettali konte ñun si 33 800 <coughs>

koo xam ne noo ko soppal sunu bopp muy seex Ahmed Tidiane Niang maa ngi koy siyaare di ko wàcc wàccuwaayam di koy ñaanal yàlla yokk ko wér yàlla yokk koy xéwal sunu mag tamit alxaji Fallou Cissé nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaare di ko ñaanal fa la xam naa sëñ Malick daf nu yëkkatul tuuti sooratul duha su ko defee mu am tuuti loo xam ne dinañ ko fàttalikonte ak mbokk yi si lu leen di jariñ tey nu baa nu yéene leen a baaxee tuuti rek si ibtaalul sexr te mooy loo xam ne day toj njabar defe naa dinaa di wax nag ne jamono li gën a yomb mooy seetal ni ne ko dañ la liggéey koo ko waxal rek gis nga ko ndax dinaa di wax ne ki nga xam ne am na solo tuuti ba mën a jóg dem di seetlu ak domaine bu ma ko defee donte woon nag euh, dama ne du dama ne gërëm naa seet yépp bu nu ko waxee loolu rek gis nañ ko gis nañ ko si ni képp ku am tuuti ndimbalu yàlla ndimbalu yàlla mooy sutura ñàkkul amaana ko xam ne walla ñoo xam ne loola gënalu leen walla ñoo xam ne bii nu ngi jéem a fas walla na ngay sëf wala na ngay naawtal wala na ngay taal wala ak bu mu ci mën a door rek fa tabarak la ngir am si yow dara mooy tax ëpp na na ma koy waxee rek ëpp na jaam di bàyyeeko te nit dafa war am tuuti poids dafa war am tuuti poids du jàggante na day doon mbër wala mu yor poids kuy doon mbër day am poids mooy warul la doon koo xam ne fu ngelaw ñëwee rek lu ngelaw ñàkk-ñàkk solo su ñëwee yóbbaale ko loolu fa tabaraka laa ëpp na moo tax nuy baaxe tuuti rekk gannaaw bu nu dégloo sorotu duha ba pare nuyu ñëpp siyaar ñëpp ñaanal ñëpp tamit ndokkeel ñépp ku nu déggul sa turit fa tabarakalaa yaa ngi si xol bi ñaan at mi fa tabarakalaa na ma ko xewoon rek muy xéewal si ñëpp ñëpp ñëpp fa tabarakalaa waaye muy xéewal si réew mi tamit fa tabarakalaa kon alxaji Maalik nga yëkkati nu tuuti sorotu duha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 889 83 30 nu fas yéene baaxe tuuti rekk ay kayfiyaat yoo xam ne ndax Wadduha nañ koy waxee rek daara la ni nu ko doon defee depuis 2011 ba léegi fa tabarakalaa fépp fu nu toog rek yéene nañu séddalanteeg mbokk yi yi nga xam ne yàlla def na nuy connecté wu ak Wadduha wala nu fàttali konte ak ñom lo xamné dina leen mëna a jariñ ndax du gëna xam waye la hay biranté rek la fa tabarak la nu ci sant yàlla bax nak nax barana ñoo xamné bi ma sha allah. dangay ngay jokkoo ñoom nu lay waatal ne dinaa la yónnee ñaan toujours te loolu ay at yu limu lanu ko def <coughs> te jotaay doxagul sama diggante ak ñoom te loolu fa tabarakalaa ñaan yu yàllay nangu la ndax jullit fu mu toog wéetal yàlla xelam dem ci yow lu mu la yéene rekk ci yiw yàlla def leen koy séddale kon fàttali tuuti yenn sabab yoo xam ne ku mu nekk si yow rek soo ma nee faxas sa yaram danay yomb bu ne faxas nag lu nuy faxas rekk bokkul si yaram te pas-pas ëpp nanu koy mën a gëmee fi nu toll tegtal yi war nay bari ndax tolloon nay jamono xaj na li ñuy wax portable amul woon walla bariwul woon te léegi defe naa ku ci nekk soo ko bëggee jot numéro am ngay composé daf <coughs> defe naa àddina bi li muy yaatu yëpp it amul ci ñaari nit ñoo xam ne bi noo bokk benn numéro kon mu mel ni ki ka nga xam ne bii Modou Cissé la bëgg fas day fexe ba xam numéro Modou Cissé mu seet la nga xam ne moom la bëgg se moom mu woo seytaaneem ndax li ma koy waxee xisbu seyti seytaane dafa am te yàlla may leen pouvoir ndax lépp yàlla la dangay toog a ngi mu ne gaw ma dama gëm ne lépp yàlla la lu am yàllaa ko dagal lu bir la waaye yàlla moo bàyyoon moo seetaanoon ka mu gën a bëgg te muy xaritam muy sallallahu alayhi wa sallama ay noonam xaañ ko ba deretam génn dëkk ba mu ganee àddina nu génne ko fa mu dem si nijaayam it nu dàq ko boole ko ki dof ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bii bu sooboon yàlla rekk waxuma la def waaye xalaat sax duna ko def yàlla moom moo seetaanoon Firawna ak kàccooram dem muy dem ba ana rabbukumul axlaa mu gën di koy jay di koy gën jay di koy jay ba mu wax ne maa xalimtu lakum min ilaahin xayri te nee naa su ko sooboon xelam sax fa tabarakalaa su naree dem si loolu mu faagaagal ko waaye it fa tabarakalaa yàlla dogaloon sunu maam aadama ak xawwa ba nu dëkkee aljana seytaane ñëw jaxase leen ba xawwa laal sa la nga xam ne moom la leen tere woon tegtal la si ne lépp yàlla la waaye dafa bàyyi lépp doomu aadama mu mel ni kii doomu aadama ba mu ko joxee xer rek la séparé wu bàyyee ko boppam ko tamit ba xam ban lay jël da ngay jël boo xam ne da ngay dund saa dina dund gu teey dund gu yàlla gërëm soo fi bàyyi ko nga ànd ak yërmandeem wala nga nekk fi di def du la la soob mu lay di jaay nag soo fi bàyyi ko mu wan la ne moom mooy kon lépp yàlla la waaye nan di muslu nee naa man gawma si ñin yi wax ne sallallahu alayhi wa sallam njabaroon nan ko ba falaxeeg naa si wàcc gawma ko waaye ku jàng ñaari saar yooyu xam ne pas-pas yu waswisu fi suduri naas mhm, minal jinna wal naas tegtal la si na fi tabarakallah nit toog fii diw nekk nit nekk ba Canada wala Australie walla yàlla xam mu jël ay pas-pasam si misaal di fas di ëf di fas su paree mu jël loola mu fas am na mu ko def cër bañ loolu yaa quelque chose lu ëpp di weddi la mooy tax nan di muslu te dina di wax ni téeméer ba nit di sonn ngir ngir fas la walla ngir liggéey la walla ngir gàllankoor la ñaar dërëm rekk mën na man nga am ñaar dërëm yoo xam ne day défendre loolu waxin la si ne fas nit ba mu jàpp moo gën a metti lool moo gën a metti fuuf moo gën a metti fuuf nit ku ma fas du jàpp walla lu fa nekk deñ loolu jafewut aar sa bopp ba pas-pas bu la jàppee nga yëg ko walla du yàgg walla su la jàppee bàyyi wallaahi lu yomb la tey dana am lenn loo xam ne danañ si baaxe mbokk yi te mooy di saxoo laab benn di léemuy si lu nu mën di def rekk fa tabarak la nu musulu tudd yàlla ci seytaane musul seytaane tudd yàlla léemu su dee loo xam ne lu nu boole woon ak lu nu war a lekk la loola day neen su doon lu nu war a naan la loola day neen su doon barab la boo xam ne bi dañ leen fa def dara tamit saa yooyu dugg rek nga léemu lu nu la fa man di def fa tabaarakala su waroon a jàpp fukki it amaana genn wàll lay jàpp war a amaana du jàpp dara fa ngay liggéeyee ba ba ngay toog sées ba ngay toog bala ngay toog nga léemu tudd yàlla léemu looy def rekk soo musloo seytaane tudd yàlla lépp loo xam ne lax woon na sa si seytaane dooleem day wàññiku ndax fu mu déggee turu yàlla daf koy lakk daf koy gaañ mooy tax loolu na ko ñépp bàyyi xel bañ du koy xet sooy génn sa kër sooy dugg sa kër booy toog sa lal booy sol yére booy lekk booy naan booy ànd ak soxna sa soxna lu mu si door rek fi tabarakalaa nga jiital musulu seytaane tudd yàlla loolu dana lay gën di dimbale di saxoog laab tamit saa yoo ko mënee dinay gën di dimbale nit dinaa di wax ne xëy macha allah sañ sa ba saaxir ba lépp macha te baatin ba yàlla rekk a xam wóorul ci jamono ji ndax jamono fi nu toll dafa xawa a lëndam dinaa koy wax ne sayaatin yi embouteillage su doomu aadama yi la muy bëri lépp ba sayaatin yi moo ko ëpp kon fu nit nekk rek amaana nekk na faag lu mu gisul te loolaa ngi koy gis mooy tax toujours rek nan di muslu fa tabarak la xam naa am na euh, lu ngeen déggoon muy crafil yàggoon na di koy wax képp ku yàlla dogal nga wattu ko walla nga ame ko ëpp na di xet soo yëgee ne sa yaram dafa am ay pas-pas ma liggéey dafa ne sa yaram moo xam liggéey ba yóbbu sa fit ba nga xam ne foo tollu rekk sa fit a ngi yëngatu wala liggéey ba nga xam ne foo toll yaa ngi dëkk ak bopp bi metti ndax dinaa di wax ne néew na ko attan cent kilos te da gis ko xam ne amaan ay tonnes lañu ko yenn wala ki nga xam ne fi tabarakalaa fu jant jógee rek dootul am jàmm su doxee même pas dix mètres yaramam sonn wala ki nga xam ne fi fu jant sowee rek yaramam fasu na wala ki nga xam ne bi fi tabarakallah ay xéewalam yëpp ay buntam yu si bëree bëri fi tabarakallah bunt bu mu daan laal mu ubbeeku léegi su ko laalee day dëgër dinay demit fi tabarakallah ñi nga xam ne dañ leen di sol ngelaw ba nga xam ne seen yaram day doon beneen melo dina samit ñoo xam ne lañuy wax xaptal lañu leen liggéeyee saa sunu tàngalee loola rekk ñoom dootul nekk dana si bokkit li ñuy wax naawtal te mooy nan koy waxee fexe nit ba nga xam ne dootul toog toujours rek xelam a ngi si dem li ñuy wax da fexe nit la mu gën a no bëgg moo xam doomam la moo xam jëkkëram la walla jabaram la moo xam liggéeyukaayam la moo xam këram la moo xam otoom la moo xam lu mu mën a doon rekk nga fexe ba dëddaale ko loolu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tudd na ko mais yooyu yëpp mën nay doon liggéey li ñuy wax kort nga xam ne bii macha allah nañ koy waxee rek toog fii yónni seytaane ne ko demal ma barab sàngam mu dem fa dugg nit fu mu laal sa moom rek foofa lay yëg tawat te wax yaa subila su dëppul mën na koy lor mooy tax fu jaam di nekk rek war nay muslu si loolu ma waxoon léegi di saxoog laab tey léemu tur yàlla lenn tuutiwu si lenn fa la fu mu ne ku la seet si ku xëy si woon suba kër ga doon man nga ne ko jëlal bismillahi rahmaani rahim li koy def nangam amaana day foog ne joxuloo ko dara wala amaana mu xeeb la nga ko jox fekk te wallaahi jox nga ko lépp ndax bismillaahi rahmaani rahiim la fatiha yi am doole lépp ak la muy màgg la muy tedd lépp dañ ne sekkere baa nga sa basmala gi waaye nu ne basmala gi it sekkere baa nga si baab kon mu mel ni benn xaraf ba bu muy baa rek macha allah bu ku ko yàlla barkelal lépp luy aajo yàlla mën na la ko si fajal. kon lépp loo xam ne lu nu jëfandikoo la te muy lu jëm sa yàlla bu nu si dara nanu ko nangul rekk te nam nu koy nangulee nag si ñun lay doon te mooy pas-pas bu dëgër ak jox ko lépp woon ko ne ko yow la yaa yàlla waaye jant boo gisee sa bopp wala ngay gis ne yow la moom bokkatul loolu yi nañ koy gën di moytu bu baax a baax gannaaw Karaafil it xijaabu rasul defe naa ñu bëri doon nañ koy dégg moom it ay livre la yoo xam ne copier woon nañ ko pour bëgg ñëpp jariñu si ndax kiir laay la boo xam ne moom la ñuy wax sayful ahdaa siy noon mu bokk si secret xali karamallah wajhahu bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam wax na ana madinatul xilmi wa ahli baabuhu muy sekkër bu rëy rëy rëy boo xam ne macha allah dañ ne ak xam waroon nay toll si ñaari yëkk misaal rekk si màgg goo xam ne màgg na ko moom it macha allah képp ku dajeeg moom soo koy jëfandikoo. yàlla dana la raxasal lépp loo xam ne dafa takkoon ci sa yaram sa ay pas-pas tey yàlla dana la may kiir laay ba nga xam ne lu fasati fecc ko te loolu day am solo gannaaw boo raxasee ba mu set nga aar si misaal boo raxam son sa bool ba mu set nga bàyyi noonu te ubuloo amaana dina puseeraat ba lay yàgg waaye nag soo ko tëjee utaan morso muur sa kaw saa yoo ubbiwaatee rek loo sa bëgg a def mën nga koy def ba tey fa la wa samay wa taarix ku yàlla dogal mu mën koy bind juróom-ñaari yoon moom it macha allah day dindi pas-pas day dindi pas-pas te day saafara waale ay tawat sart la sa gën nag ko koy bind sol sol col ko bu weex def ko saafara di naan ba màndi di sangu dina koy wax ne nan di naan alxuraan ba màndi ndax yaram yi fi la baraan na si yaram yoo xam ne ñàkkul eh, seytaane daray seytaane nga sa te bu dee jëfandikoo alxuraan rekk seytaane day randatu su bare nag day mujj dem ba Alku ko fa tabarakallah moy tax nan di nan ba di na koy wax ne ordonnance léegi nan si bolé kitabullah bi te moy alquranul karim alam tara kayf fa faxal rabbuka bi ashabil fil momit it ko ak jurom ñent tabarak yi nek sar quran jurom ñent tabarak yi jurom ñent mi mo nek ci alam tara mim ubirek ubbi rek da ngay bind ben tabarak sibir so pare utal juróom-ñeenti xeer tàngal xeer yi ba mu tàng fay ko si naan juróom-ñeenti guux sangu si si mbaaxu borom bi lépp lu doon pas-pas si yalla yalla yàlla dina la ko feccil ndax juróom-ñeent baraana kuy fas juróom-ñeent fas-fas lay fas wala fukk ak benn mooy tax macha allah yoon la bu am solo maa jextum bi xi sixra ina laaxa sa yabtu ina laaxa sa yubtiluhu mooy macha allah képp ku ko bind ak faatixatul kitab moom it boo paree noonu rek fay si juróom-ñaari xal yuy dund naan juróom-ñaari góox sangu yàlla mën na def lépp lu doon pas-pas yow mu fecc ko suratu yaasin moom it képp ku ko bind baax de kullu aaya nga bind wara a si xalasina faru bi xay sihim soo paree nga def ko saafara di sangu ak kanaan lépp lu doon pas-pas si kattanu yàlla yàlla dina la ko feccil ñuy ñaan li ma mbokk ba mos wax rek ne ma ñuy fas nooy fecc looloo ko jaaxal <laughs> ñuy ñaan yàlla may ñëpp defaru jiital si sunu bopp ba nuy yenente jàmm ba dootul sànni kenn wala bu nu mënula ñàkk sànni mu doon koto ni ma koy waxee ne defe naa yenn ku mu wóoroon ne loo sànni ni dana dellu si la tegaloon xeer tegal la coton bu la wóoree ne la nga sànn si yow lay ñëwaat defe naa koton ba ngay tànn ñu ñaan yàlla may nu defaru yàlla gën a raxas xol yi nu gën a yéenante jàmm gën a nangu ay ndogalam tamit dina koy wax ne lu nuy gën a tarder rek loolu bokk na si te mooy lu tax ñu yàlla dogal nuy sëy lu tax maak moom la woon waxoon naa man man la ko diggoon lu tax mu bàyyi ma fi nangam nangam te dina koy wax ñu bëree bëri di leen si delloo si si ne am na si yoo xam ne domaine borom bi la. te mooy ñu war a mën a ànd fawat nu ànd ndax say sa asal la ko yàllay dogale ñaare dangay gis koo xam ne biit macha allah du fi amee mu jaral ko lu nekk ba ñàkk imaanam boobu ko si yàlla jaayit bala la mu waxoon am ma ngi koy xaare loo xam ne jaratul woon muy bari julleem kon nan gën a gën a defar xol yi gën a yenente jàmm gën a nangu dogalu yàlla tamit ndax wa ma tasaauna ila an yasha allah fa tabarak la sëñ Malick mu xam naa sonu ma ne Euh, li ñu programme woon si ay toccal nag xaw nay bëri dañu see tënk loolu rekk faatixatul kitaab ëpp nay xeet ndax la benn mag waxoon faatixa faateye bind ko ñetti yoon moom it naan ba màndi sangu wallaahi mën na lu bëri soo ko sottee nag mu senn si inde wadd si lekket lay gën a tin day rocc lépp loo xam ne pas-pas la woon si kàttanu yàlla dinaa di wax ne ki nga xam ne këram wala liggéeyukaayam la njort ne dañ ko fa yàq moom it samadu samadu 104 lay tollool na ko jéem a bind si suufu tànkam rekk saat ba mu ubbi ko dugal sa biir turam su demee si barab ba mu njort ne foofa dañ ko fa fas dañ ko fa liggéey mu def yaa Samadou mu def ko 104 si barke Samadou fa tabaraka laa barab boobu lépp loo xam ne façon ko fa day fecc ko loolu nu ngi koy xaddiyal ñëpp fa tabaraka laa tabat yadaa juróom-ñaari yoon it moom it macha allah boole ko xasu xay moom it macha allah day dindi pas-pas. day toj liggéey tamit kon loolu lu nu doon baaxee ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogaloon nu connecté si 95.5, point cinq seen ngeen koy am àllarba bu nekk si rajo municipal de Dakar sàndeeg dogalu yàlla su yeneen beneen émission dinañ baaxee tuuti mbokk yi si loo xam ne day yombal xéewal muy lu am solo di ci bokk it si lu yombal xéewal mooy gannaaw ba jëmmu laabee xol làpp di góorgóorlu kem kàttan ci sa diggante sa borom sa digganteeg doomu aadama yi jéem a xam sa sarax dinaa di wax ne lu am solo la may ko lu ama am solo la la ma doon wax léegi rek si ne machine boo gis rek ñaari ñàkkul mu am kot da nga di dégg yenn saa sama portable wala sama machine dafa bloqué wu mu mel ni ki ku la mayoon machine bu bloqué wu feeg débloqué woo ko njariñ la du bari soo amee ku sam xam-xam ba la koy débloqueel ñàkkul la koy débloqué yépp ay chiffre la ñaare nit mën nay tëju tëju goo xam ne la koy gën di dimbale dana si bokk mu xam saraxam ñaare nit dang na xam saraxam rek léppam defaru fa la li tënkoon lépp ko mooy tax néew na ku nu yàlla booleel tey du jiital loolu ndax dinaa koy wax rek day xaw di mel ni kot mu mel ni foo doon dem jox nañ la caabi bu la joxee caabi te mooy caabi port ba nga war a ubbi nag àgg fa day yomb lool lool lool fa la kon sëñ Malick nga am loonu yëkkatil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

نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك في والدكتنا جوكتي على جمود سيزن يرغو أحمارا سيزن ملين أندلون كرافيل خمسون قاف إجاب الرسول سمسول البلاد.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

bu baax ngeen ñaanal rek. yal na yàlla nangu te barkeel ko. jàppale doomu aadama yi. jërëjëf yaram. yal na yàlla taxaw may yàggal seen taxawaay dàqal leen seytaane musiba ak bala yëpp. amiin amiin yaram amiin. waaw man man man man man dama am sama sama doom dafa dafa doon lekk nii jël benn yàpp lekk ko mais après affaire bi. mel ni lu reesul quoi dafa mel ni lu des des ci baat bi ma ne woon. comme maa ngi déglu émission bi dina la ko laaj en même aussi ma ni des fois man dama am ma ni dama su ma comme nit war a jox ñu dara nii ma ma def sama xel. Mhm. ma dem war ko jox. Mhm. ma am am dog-dog. Mhm, waaw man ma yaakaar moom daal. waaw day wala su ma yoroon léegi cinq cent mille léegi nii. du taxaw. Mhm, laxo laxo la ban. damay gis damay gis ay nit ma jox la. Mhm. dem xel kenn di lekk ma jënd defar noonu laay def. wallaay wallaay. Mhm. Mm. baax na waaw daal laa kii mais xam naa jël naa xam naa dinaa woo yeneen yeneen kii baax na incha allah yaram. Mm. yal na yàlla barkeel la. jërëjëf baax na jërëjëf jërëjëf. macha allah yal na barkeel yàlla yokk sàmm lu bëri barkeel njaboot yi bisimilah ki si yoon bi 33 889 83 30. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. alhamdulilah. jërëjëf Adja. jërëjëf. salaatu wa salaam ala rasulillah. sallallahu alayhi wa sallam. Cissé sang bi Cissé. Eh, sant bi soxna. Guèye la man la gan Guèye bu soxna bu soxna gan Guèye bu kër daaw da saar ah dëgg la Guèye Guèye Guèye waaw si di soppe wondo ha si Cissé wallay ndeysaan dëgg la Guèye Guèye Adja ah, Aram di sama présidente moom tamit macha allah wallay wallay wallay Guèye Guèye lool macha allah wallay wallay wallay damay jokkoo ak ñoom téléphone jërëjëf Guèye ngir yàlla ak si jëmm Cissé tey gisanteeguñu moo sax nag ak ñoom yàlla xam na ko wallay wallay wallay waaye macha allah ñu ngi lay topp bu baax di la déglu di la suivre jërëjëf yal na yàlla barke lépp ñàkk ki ñaan nga ci sa xam-xam macha allah yal na yàlla barke lépp Guèye yàgg yàlla na ko yàlla. amiin amiin amiin soxna yàlla bàyyi la ci sunu kanam. ba ca kanam amiin amiin amiin soxla nañ la fi lool lool lool macha allah. jërëjëf jërëjëf Guèye soxla nañ la fi lool. jërëjëf jaboot yu ndaw lañu rek. Mhm. te bëgguñu dara lu dul sëy rek te yàlla tax. wallaay ndeysaan wallaay wallaay. ak it nag lijjanti sunu njaboot gi. wallaay ndeysaan yàlla teg ci mhm, mhm, macha allah alhamdulilah tegam jot naa la téléphone. Eh, wallaay yal na yàlla barkeel jokko bi. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. yal na yàlla barkeel. amin yàlla na yàlla dogal amin amin ci daraja yonent bi sallallahu ku jara sant la ñoom Modou Gaye ak wallaay alaaji la dañuy déggante si audio yi ak yëpp am na solo am na solo kàll yal na yàlla barkeel mbooloo bi amiin yaa rabbal <laughs> allah dinaa nelaw boobu ba léegi maa ngi xëcc wallaay wallaay jërëjëf Adja ziar tamit Adja Aram wallaay ndeysaan wallaay xam naa mu ngi si yoon bi ñàkkul tegu ci yoon wi kay ak ñoom maam da baax ak ñépp amin amin amin amin nan la fi amin amin amin soxna sallallahu alayhi wa sallam amin jërëjëf yal na yàlla barkeel jërëjëf barke la 33 889 83 30 bisimilah ki si yoon bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Euh, sant bi. Laaji Modou. waaw yaram. ah euh, Laaji Modou Gaye. ah Gaye Gaye sëñ Modou. sëñ bi yal na yàlla nangu tabarkel jërëjëf gay gay ah, wallaay mbaa waxu leen dara rek si rediffusion yu bëri yi maa ngi si jéggalu de wallaay wallaay maa ngi si jég <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ amin amin amin amin gay amin amin amin amin wala mbokk ci ñëpp rek amiin amiin amiin Gaye ci sa ñoo ngi am mbégte lool wallaay Gaye Gaye jërëjëf ziar nag ñëpp rek wallaay ndeysaan week wadduxaay uh-huh. yëpp daal ñu ngi ziar ñëpp ay wuñ kenn wallaay wallaay Gaye góor ak jigéen mag ñëpp di baal ñëpp àq daal jërëjëf Gaye Gaye yow moom am ñu sa fay xanaa wallaay ndeysaan wallaay jërëjëf Gaye kenn fayu la tamit sëñ bi mm-hmm, jërëjëf waaw moom mi nga xam si lu ko soob mu am. wallaahi wallaahi wallaahi. ne daal moom rek yal na ñu yàlla fayal. amiin amiin amiin li nekk ci xol yi daal moom mënuñu koy génne. wallaahi wallaahi jërëjëf sëñ Modou. luñ ci mën a génne rek la ko des moo ëpp la génn. wallaahi wallaahi jërëjëf. yàlla rek ñoo ngi rafetlu bu baax kàddu yeeg macha allah. jërëjëf jërëjëf sëñ Modou. ak ñuy baax yëpp daal. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. yàlla moom dafa wax ne sax comme ni ñu rek ki gën ci nit ñi moom mooy ki dafa jàng alxuraan pare di ko jàngale. wallaay jërëjëf gis nañ noonu nga noonu nga ñu taxawoo tamit. jërëjëf yal na yàlla sàmm te barkeel baax rek yéen nga ko doomu aadama yi sa sa say jikko say jëf yëpp daal wax dëgg yàlla ñu dañuy roy si yow rek. jërëjëf jërëjëf man de xoolatuma ci kenn wax dëgg yàlla dama roy si yow bu baax a baax. wallaay jërëjëf xëy na nag mu ñu laa jot xaaj xaajal ba sa waaye nag ñoo ngi say sa ginnaaw rek. jërëjëf sëñ Modou. te lépp day ñëw day nañu wax dëgg yàlla. jërëjëf jërëjëf kontaan nañu bu baax. jërëjëf jërëjëf yow bu baax a baax di ñaan rek nga yàgg fi lool. amiin yàlla bale na ko amiin. amiin amiin ñu ngi ziar ñëpp daal bàyyiwuñ kenn nag. wallaay wallaay jërëjëf sëñ Modou naa ko lim juum rek association bàyyiwuñ kenn daal. <laughs> ñëpp daal li ziar nañ ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuñ kenn daal. jërëjëf jërëjëf jazakallahu xayr amiin la yàkk jëf amiin amiin barakallah jërëjëf alaaji Modou Gaye bu Tëngéej macha allah yal na yàlla yokk ko barke xéwal macha allah doon ko am itte lool itte bokk na si groupe Wadduha solidarité moom moo ko taxawal loolu lépp itte la fa tabarakallah nu ñu koy ñaanal lu bëri di koy sant it. 33 889 83 seen émission Wadduha si rajo municipal de Dakar 95 point ku jaar si yoon boobu rek allah sëñ Malick dina ko yëkkati 33. 889 83 30 mooy yoon bi ngeen mën a jaar di nuyu bu baax bismillah ki si yoon bi bismillah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ Mara Cissé. wàkkañ Adja. man la Awa Seck. Seck soxna Awa Seck. sëñ ñuy ziare bu baax. yal na yàlla nangu tabarkeel Seck. Seck maa ginnaaw woote mënumaa fexe ba dugg te la yàlla dogal ma dugg. jërëjëf jërëjëf soxna sant bu baax jërëjëf yal yàlla nangu. yàlla yàlla taxaw la yàggal la suñu kanam. amin amin amin Seck amin amin gis naa ni ngay bu baax duñ lay mhm, la ñaanal yàlla yàggal la suñu kanam. askan wi la. amin jërëjëf Seck. di la ñaanal jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna na yàlla barkeel. amiin amiin amiin jërëjëf. Seck na entreprise wa doxaa taxaw. amiin amiin amiin amiin Adja. yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko eh, na yàlla barkeel. amiin amiin. jërëjëf. jërëjëf soxna Awa Seck yan yàlla may 33 889 83 30 l'émission Doha, c'est si rajo municipal de Dakar bismillah bismillah 33 889 83 30 bismillah ki si bisimilah mbokk bi. allo. waaw bisimilah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatu. Mor Ñaa la bu Mbacke Bari la. ah El Hadj Mor Ñaa maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaara. loolu loolu sax bi moo tax ma gën a woote bëgg naa nga ñaanal ma ma siyaara ji rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam. sa bokk naa si say soppi nag sëñ Mor. mas naa la feewoo xaw na yàgg nag war na def ñetti at ñaanal wér ñëpp koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi sa soppe la amin amin amin ñaa ko te doyoo ko dara wallaay ndeysaan mm-hmm. dëgg la waaye am nañu droit nag ne nag suñu sopp bi war nañu dem tim ko wallaay yàlla na ko yàlla yombal <laughs> amiin jërëjëf Niang. di di rafetlu bi. jërëjëf jërëjëf xanaa fan auditeurs yi ba dañ ma laaj naan émission bi ay redivision daf ci ëpp. Mm-hmm. ma ne xam naa day jàpp rek wala gars yi laajaat émission yi. wallaay dëgg la dëgg la. dëgg la ñu bare bari ñu ngi ma laaj ma ne xam naa day jàpp wala am yoo xam ne dañuy laajaat émission bi. wal wallaay dëgg la dëgg la kay. ñu bu baax a baax. jërëjëf sëñ Mor Niang. dégg naa lool si jokko bi wallaay wallaay. wax naa la fii bu njëkk ñun sunu maam yi li ñu yoroon ci xam-xam yëpp dañ koy yóbbaale. Mm-hmm, mm-hmm, ndax la mm-hmm. dëgg la dëgg la xam-xam ba nëbb ko ba dem. Mm-hmm, mm-hmm. jàngal nañ ko seen sët yi jàngal ko seen soxna yi jàngal nañ ko seen doom yi. Mm-hmm, loolu baale kon boobu xam-xam dafa nuyu. wallaay dëgg la dëgg la hmm? dëgg la tubaab yi ñoom seen ñu gënee àdduna tey réew dox. wallaay wallaay gis ku gérer benn société jël benn compte banque def ci kotam nëbb ko ba dee code ba kenn lu mu doon. loolu affaire africain la <laughs> dëgg la a ñu ñaaw seen mi africain la. wallaay ndeysaan wallaay tubaab moom moom dañ ne boo bokkee société. Mm-hmm. même boo faatoo du dee bi dox ñun nag boo faatoo société bi dee. Mm-hmm. wallaay wallaay wallaay wallaay. Ah, loolu gis naa ko fi dëgg la ba africain ko jiite. Mm-hmm. dara moom mu génn àddina affaire ba niil. parce que euh, duñu jàngal kenn dara. duñu la wan dara. kon ñu ngi leen bu baax a baax. jërëjëf sëñ Mor ñaanal jàmm di ñaan réew mi daal. li ma ci gën a wax daal mooy képp ku am ñaan guy indi jàmm ci réew mi mhm. ñaan naa la nga ñaan ko wallaay jërëjëf réew mu jàmm la mhm. du réew mu ay bile ay milliardaire waaye réew mi ëpp fi ne mhm. jàmm ji ñu africain di di di xoole nag moom la ñuy ñëwee te noonu am nañuy am nañu jàmm wallaay wallaay yàlla yàlla yokk jàmm amin amin amin amin amin amin jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullah baraka la fika alxaaji Mor Ñang noo commencé wax alxaj macha allah yal na yàlla jàppandal lépp di yàlla yokk xewal yi bismillah ki si yoon bi 33 889 83 30 seen émission Wadduha rajo municipal de Dakar bismillah ki si yoon bi. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. si si si. yaaram sant bi. Ndour la. Ndour sëñ. ah sëñ. Ndour nañ def. si Souleymane. waaw ah Ndour Ndour Ndour. ah moom li ma lay ñaanal si bu bees bi <laughs> sëñ Mor ah, siyaara ji la wax ah, <laughs> waaye yow moom xam <laughs> ah, bëgg naa ngeen kii tuuti de yow ak sama lebu bi. Habibou Mbaye mooy yoon de mooy yi lu bari. mais dama xam ne da ngay xat souvent. Ah. wallaay dëgg la dëgg la. yàlla xam ne maa ngi fay bëgg ñëw booba tey. wallaay wallaay sëñ Souleymane. Ah, macha allah yow ko am couleur nga. yow moom. <laughs> moom la dégluwul sax moom bu ñu la namee sax ñu ngi lay déglu ci YouTube bi. wallaay ndeysaan wallaay wallaay. ñu déglu waxtaan yu baax. wallaay wallaay wallaay jërëjëf yal na yàlla barkeel lépp. amiin amiin amiin. <laughs> waaw dañu kii la bu mu nekkee direct ma baax de si rediffusion yi. <laughs> non saa yi liggéey yu nuy fekk comme nu ne xalwatu wala nu génn wala yooyu rek mooy tax. waaye yéene bi moo doon nu macha allah chaque mercredi rek nu wettali compte. dëgg la baax na waaw. Eh, eh, eh. sëñ Souleymane. yàlla yokk xewal yi lu bëri bëri. at bi moom doon at boo xam ne macha allah. amiin amiin <laughs> yi day yokk. mu ànd ak set amin amin. amin waaw set. bi moom seet jërëjëf Ndour Yani na yàlla barkeel amin. amiin eh, jërëjëf ni ngi ni wala sëñ Abibou ni ngi ni bu baax sëñ Abibou mbay premier orateur Omar sek. moom it maa ngi bu baax bismillah 33 allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ si maa ngi leen di ziyaare yal na yàlla nangu tabarkeel ñaanal bépp jullit rawatina waa Sénégal yëpp. Eh, jërëjëf yaram. yàlla yokk jàmm bi. amin amin sutura bi. amin amin yaram. te di ñaan ngay ñaanal Mamadou Ndiaye bu tëggee bis bu jot ndax bis bu jot maa ngi lay ñaanal ak mboolem jullit. wallaay ndeysaan jërëjëf yal na yàlla nangu lépp. foo foo foo ñaane fer boole ci Mamadou Ndiaye bu tëggee. Mamadou Ndiaye tëggee jërëjëf Ndiaye Ndiaye. Ndiaye boo nee doomu Adja Aram rek moom xam na. macha allah <laughs> am nga yaay ju baax. waaw waaw <laughs> moom bañ xamante léegi yàgg na. wallaay ndeysaan ajaara moom macha allah yàlla ko defar. këram bu jëkk waaye ba léegi moom daal a maa jàpp. wallaay wallaay wallaay wallaay. maa koy siyaare. Mhm. moom nag démb dama ko oo ba sonn mënu ma ko jot dama xamul lu parce que Mouhamed Diop laa soxla woon. Mhm. mais jotuma ko jot xam naa ne bu ma déggee moom dina ma oo mu jox ma numéro Mouhamed. incha allah baax na ñàkkul bu nu dina woote wala sunu jokkoo ëllëg dinaa la jox numéro Mouhamed incha allah. waaw parce que saafara njaboot yooyu daal dama cee bëgg. te man da nga jaa sax ñoo dëkkandoo waaye comme xaw ma bi. baax na mu ngi si rond point station sel bi. station sel bi waa sta bi bi. ah juuti bi. waaw am na jàkk ju fa nekk jàkk ji ak place bi noo takkaloo. ah foofu kañ xam naa ko. cent cent franc rek ngay passé. wallaay wallaay wallaay wallaay. baax na baax na kon baax na dinaa ko sabab. baax na baax na yan yàlla barkeel jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf yan yàlla barkeel mam sëñ Mamadou Ndiaye Tëngéej bisimilah 33 889 83 30. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Adja Aram. sa doom moo doon génn léegi de. waaye sama baax la depuis tam si dund ba allah ndeysaan ndeysaan. yow ma jàpp te moo ñu daan defaral suñu télévision. ndeysaan ndeysaan ndeysaan macha allah loolu kóllëre la. wallaay dafa am kóllëre at yu bari sax macha allah. ndeysaan ndeysaan bëgg la lool tamit wax dëgg yàlla. wallaay wallaay wallaay. wane que kii bi euh, bitig bi mu ngi station Shell bi rek. Mhm, dëgg la dëgg la rond point juuti bi. Mhm. waaw ku dugg si biir station bi da ngay won ñiy jaay essence gannaaw rek. Mm-hmm. nga xool à ta droite rek bitig bi mu ngi xaw a jàkkaarloo ak dëye bi. baax na incha allah am na kuy jaay daal la si à côté ak benn restaurant bu ñu taxaaloon. maa ngi leen di ngi lay fay Adja Arame présidente association Wadduha. di leen ndokkilaat lu bari si taxawaay bi ngeen amoon si bésu Mouhamadul Amine bi. bég lool lool lool lool. maa ngi lay nuyu Cissé. jërëjëf lu bari di ziar waa Wadduha yi. jërëjëf Ndiaye. lim sa turaak ku ma dugg limul yëpp maa ngi leen di nuyu sëñ Modou mi dugg sànq. wallaay ndeysaan wallaay. wax na gan vraiment. Mhm, mhm. day soog a dugg bees la mais ku baax. wallaay wallaay daaw Daouda Sarr. Mhm. Mm-hmm. sëñ Abdou Aziz suñu oustaz sëñ Abdou wallaay maa ngi koy siyaare lu bëri. ñu waxtaan yu neex si biir. wallaay ndeysaan am na solo am na solo. fàttali suñu diine di nu teg si yoon macha allah. wallaay wallaay bi macha allah am nañu pas-pas lool. wallaay wallaay. yokk xéewal yi rek. amiin comme ndaw soosu di mu ñaanal léegi rek nee na na nekk entreprise. amin amin Adja azim loolu lañ si yéene yal na dem ba nekk entre amin amin amin Ndiaye ku nekk gis si boppam si amin amin amin amin Ndiaye yàlla yàlla ni defal di ñaanal sëñ tamit kenn wallaay ndeysaan kenn mënu ko fekkee sëñ Modou wallaay dëgg la dëgg la ko passé fu la macha allah wallahi bi nuyu tam Babacar kan suñu <laughs> am bees boobu si biir groupe suñ Babacar nu kay koy siyaare lu bari lu bari bari di siyaar ñëpp rek bayu ma kenn maa wallahi wallahi wallaay leen wax na rek numéro bi 77 la 262 36 28 hmm 262 36 28 wa garab yëpp nga fa ma bax na moy numéro Adja Aram Ndiaye tëngëj rond point juuti bi rek hmm kuy ñëw bu dee bu dee côté euh, Bargny nga jóge mën nga wàcc daral bi rek nga jéggi tali. Mm-hmm. nga dugg sa station bi rek boo taxawee si biir station bi sax boo ma wooyee rek ma génn. wallaay wallaay wallaay jërëjëf. yàlla baax. jërëjëf Adja. yàlla mottali ma. amiin amiin amiin. fu association bi toll nag. waa ñun nekk nii moom dëgg yàlla. dañ bëgg koor gi daal ñu taxawal benn conférence. yàlla baax na yàlla yàlla mottali ko yàlla yàlla mottali ko. kon eh, soxna Mati Diop mu ngi lay nuyu woowoon naa ko keroog. oh, oh soxna Mati moom dañ ko dañu manqué. téléphone moo sànq woon yoratul woon coordonné kenn. loolu la kay. loolu eh, eh, Fall ngi koy nuyu. soxna Ramatulaay. soxna Koli. soxna Jaara. soxna Jaara. soxna Rama Koli. macha eh, allah eh, eh, wallaay wallaay ak soxna Dado Bey. Dado. ku baax mhm, mhm. Sall kii. ak Sall. Mor ko am itteel la wallaay ndeysaan. ndeysaan moom it ñëwoon na keroog. dëgg la ndeysaan ndeysaan mariage rafet na lool macha allah. rafet na lool bég nañ si lool tamit. am nañ pas-pas loolu lépp yow la nag wallaay wallaay wallaay bég nañ si loolu macha allah noonu ngeen defoon njaareem macha allah defoon délégation bu mag ñëw yendu loolu kenn amul fayam loolu moo ñu war kenn amul fayam yow loo woote dañu war a daw ba eh, eh, eh. ndax teg nga ñu si yoon wallaay suñuy waajur yar nañ ñu mais yaraat nga ñu macha allah <laughs> jërëjëf Ndiaye toog ak si sa yaru jërëjëf Ndiaye toogaay yow cinq boo amoon beneen jukk sax ku xool sa comportement sax defaraat sa toogaay. <laughs> jërëjëf Ndiaye yàlla na alxuraan. amiin amiin amiin amiin amiin ma waa daara ji yëpp ñoom bàjjen ñëpp. wallaay ndeysaan wallaay. Malick maa ngi koy ñu ngi lay fay sama kàddu wallaay. jërëjëf macha allah jërëjëf. di nuyu yaayu Mouhamed. <laughs> wallaay wallaay. jaara Mbodj. wallaay wallaay mu ngi si jàmm. Adja Seynabou woo naa ko. gëj naa ko dégg tuuti. jotuma ko mu ngi eh, eh, eh, na ko lu bëri. di waa Wadduxaay yëpp. soxna na fi Siise. Mm-hmm, mm-hmm. kooku léegi mooy caatu Wadduxaay. macha soxna Oulimata Ñing. Ñing. wallaay wallaay wallaay. Eh, eh, ami soxna ami Collé ga ko dégg. ami Collé woo doon ko ziar nag. wallaay xam naa sunu tournée ba dinan ko wàcc incha allah. dinañ ko wàcc incha allah. wala soxna Top ñoo nuyu bu baax. Eh, sëñ Habib mu ngi lay nuyu woowoon na ma. waaw woon na ma démb. Eh, eh, eh, mi ngi lay nuyu bu baax. yaa ngi Wadduha aussi ñu ngi koy nuyu. wallaay wallaay ndeysaan soxna Seye. jaw mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. allah dina am dina am si kàttanu yàlla dina am kay dina am njaay. incha allah. Uh-huh. Uh, defar lépp Cissé. amiin amiin amiin Adja. na yëpp. amiin amiin amiin amiin. maa ngi nuyu Soxna Diop xam naa mu ngi ci jërëjëf jërëjëf maa ngi nuyu sama goro Mohamed. Mohamed maa ngi koy nuyu bu baax. ñu si rek jëm ku baax la. wallaay ndeysaan ku baax la ku baax la. yàlla fayal amiin amiin. jàppale si liggéey bi amiin wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay nit bu la joxee yitte rek jox na la lépp macha allah. lépp macha allah. la si sonn lool. wallaay wallaay wallaay. sëñ Modou yëpp waa groupe bi yëpp nag bàyyiwuma kenn nag. wallaay jërëjëf jërëjëf. ñu nuyu ñëpp jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. jëf Adja jërëjëf wallaay wallaay yal yàlla barkeel eh, jaar si yow rek nuyu bi yëpp macha allah nuyu ñëpp macha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Adja barakalaa soxna Adja Aram Ndiaye bu présidente association Wadduha nekk Tëngéej yal na yàlla yokkal koy xéwal yàlla defal ko defal ko njaboot gi yëpp waaye defal ko njaboot wadduha defal ko julit yëpp fa tabarak la 33 889 83 30 bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi ziar man la ummi ñang ummi ummi ñang eh, ñang soxna ummi waaw ñoo ngi ziar émission bi rafet na jërëjëf yàlla na yàlla nangu tabarkeel ah, yàlla na jëm kanam amin amin amin ñang te barkeel xaaral jox la Matar. bisimilah. waaw salaamaaleykum sëñ bi Cissé. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw baax a baax. jërëjëf yal na yàlla nangu te waaw ah, waaw yal na yàlla bàyyi. amiin amiin sëñ Matar. man de émission bi yàgg naa koy déglu. Mhm. booba maa ngi nekk Gossas. Mhm, est-ce que la. waaw. ci benn jox bu ñuy wax Bill Mbacke. wallaay wallaay ndeysaan jërëjëf. ma ñëw Dakar fan yii nag mu mel aw ma woon rajo nag fan yii ma am rajo rek di ko commencé di ko suivre. incha allah àllarba bu nekk rek si kàttanu yàlla. ñaan yi daal ñaan yi daal moom am na solo wax dëgg yàlla tabarkal. yàlla na yàlla barkeel lépp. yàlla na yàlla fay. ndax euh, bari waa la ñuy def émission yu mel nii. Mm-hmm. waaye la tënk. Mm-hmm. di xaw a nëbbu te tabarkal la yow ni koy indee daal. Mm-hmm. lain lalu ñëpp kontaan nañ ci wax dëgg yàlla lay loolu lanu yéene ñëpp mucc ñëpp yokk jërëjëf jerejef jerejef jerejef jerejef jerejef yan yàlla barkel barkela yan yàlla barkel soxna ummi ñang ak matar yan yàlla barkel leen yàlla barkel lépp lu fi bàyyi ko yéen 33 889 83 30 bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waay waay jërëjëf alhamdulilah rabil alamin. alamin waay waay waay jërëjëf. jërëjëf ah maa ngi lay ziare. yal na yàlla nangu tabarkeel jërëjëf. alhamdulilah jéem naa laa jot a jot jot jot jot a léegi laa tànkale ko Aram Ndiaye Adja Aram Ndiaye. wallaay ndeysaan wallaay jërëjëf. ndax dëgg laa jot mu Eh, jërëjëf waay waay Cissé xam nga ci fan yee passé woowoon naa la bi ma la wooyee. Mhm. fekk da jàpp nga ne ma nag ma woo ci kanam tuuti. dëgg la dëgg la. manatuma fexe ba jotaat la nag. aywa eh, na nga si jégalu bu baax de. maa ngi naan maa ngi ne bu ma raccroché ak damay woo aram ne ko kii bu ma ko jotul lekkat moom dinaa ut fexe de. wallaay ndeysaan wallaay wallaay <laughs> yal yàlla barkeel jokkoo bi. di jërëjëf di la jërëjëf yal na la yàlla fay. amiin amiin amiin soxna yal na la yàlla fay. amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin wax dëgg yàlla yow day wax dëgg yàlla ah. li ngay def ak am na solo lool loolu loolu dañu lay ñaanal rek kenn amul soppe. jërëjëf jërëjëf sax na ndax ni kenn mosu koo gis. jërëjëf waaw ndax boobu man maa ngi teewoo karafil bii. Mhm, mhm. ak Samsu Bilaat man ñaar yëpp. wallaay ndeysaan yal na yomb te barkeel. dinaa il faut ma jot maraafise. incha allah incha allah. Eh, soo fa yónnee dinaa la ko jox si kattanu yàlla. wallaahi la. mais boo fa boo fa yónnee dinaa la ko jox incha allah. wallaay la maanaam Diop laa tudd. maanaam mhm. mhm. baax na incha baax na baax na. wallaay. Mhm. bind naa ko si kàttanu yàlla bu nu jokkoo suba 11h. ah soo ma wooyee rek dinaa la ko beggandil. incha nu fexe ba nga jot si kàttanu yàlla. Mm, alhamdulilah yàlla barkeel baax bu ma amee bële tam dana baax rek. wallaay wallaay wallaay. waaw allah incha allah incha allah jërëjëf. jërëjëf yal na la léegi ci sa portable bi laa bi incha allah yal na yàlla barkeel. jërëjëf allahumma amiin jërëjëf yàlla defal yiw. amiin amiin amiin jërëjëf naa ne jërëjëf Diop na yàlla barkeel. soxna Mané Diop incha allah eh, ku jokkoog numéro Wadduha 77 la 617 70 44. 77 617 70 44 incha allah ku nu woo ñun ngay jot ñun ngay jot rek si kàttanu borom bi 33 889 83 30 ki si yoon bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Cheikh bi na ngeen def. ñu ngi sant alhamdulilah. am ñu ngi lay yàlla nangu tabarkeel. alors Aziz si parcelle. Ah, sëñ Abdul Aziz maa ngi lay nuyu di lay siyaara di lay ñaanal di sàkku sa ñaan. <laughs> sëñ Abdou bi si groupe bi la de Wadduha. waaw waaw ah macha allah ma ko macha allah yal na yokkal yokk lay xéwal. amiin amiin sama ah. moo génn léegi ay aram. wallaay bég na lool si yitte jeeg taxawaay bi. macha bég naa si lool yàlla xam na ko. Eh, itam sànq rek mu woo mu naan émission bi commencé jàpp ko. Mm-hmm. Ah, macha allah ñu ngi koy ñaanal ñaanal ko bu baaxeel yal na ko yàlla. wallaay ku jërë ñaanal ndeysaan. waaw macha allah ñu ngi koy la def njaboot te ñëpp macha allah. macha allah maa ngi lay woo si numéro 900 waaye xam naa da ngay jàpp. allah bu bu suba ëllëgee rek nga woo ma message ma se numéro pour ma am ko. waaw ndax Adja yàgg na may wax sa tuur waaye li ma amul woon sa numéro tax na jokkagun woon. waaw incha naa lool nag macha allah si taxawaay beeg yitte ji. waaw incha allah waa association bi génn. Eh, incha allah. nga wax ci nag. bi incha allah. wallaay loolu lan leen dogaloon de at bu jot rek macha allah. Eh, Wadduha am ñaari ujaaj. Mm, yàlla mën na ko si kattanam. incha allah sa koor yi nu seddale lu bëree bëri. dina amit incha allah. incha dina am si kàttanu yàlla incha allah. wallaay wallaay. jërëjëf sëñ Abdul Aziz. jërëjëf barakala fiika. yan yàlla yokk barkel. bég na lool si moom macha allah Abdul Aziz. Eh, doon kuy def ay participation yu am solo ay jàngale yu am am solo si war Wadduha solidarité Wadduha solidarité la nag groupe bu whatsapp la boo xam ne ku si bëgg a bokk rek su jokkoog Adja Aram. wala Alaaji Modou Guèye dina ko assuté incha allah euh, ku ma si jokkoo rek dina ko siy boole 33 889 83 30 ki si yoon bi. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Amicole Thiandoum la. Hmm, Thiandoum soxna Amicole la. Thiandoum Thiandoum. alhamdulilah. yal na yàlla nangu tabarkeen. amiin amiin. Wadduha gëj ngeen laa dégg. waaw <laughs> mbaa yéen a ngi am rajo bi. waaw ñu ah, ah, ngi koy am. alhamdulilah alhamdulilah càndam càndam càndam. ñu di ñaan yàlla rek di ñaan yàlla chaque jour rek. gudd fan ak wér. amiin amiin amiin sax na amiin. di nuyu yaay tamit yaa Aram Ndiaye macha allah yàlla na fi yàlla bàyyi bu baax baax. amiin amiin amiin càndam waa Wadduha yëpp nag kontaan nañ bu baax nag. wallaay jërëjëf jërëjëf càndam càndam. jërëjëf yàlla na yàlla barkeel amin amin jërëjëf jërëjëf jërëjëf barakallah soxna Ami Collé Thiandoum dëkk ba ngàpparu yal na yàlla barkeel ko doon ko fidèle macha allah si émission Wadduha 33 889 83 30 seen émission Wadduha si rajo municipal de Dakar 95 point 5 bismillah. salaamaaleykum. waaleykum salam wa rahmatullah. yal na yàlla nangu tabarkeel. benn mbokk bu ñu naan Alassane Ndiaye la. Ndiaye sëñ Alassane. waaw ñu ngi bu baax a baax. jërëjëf Ndiaye Ndiaye. yàlla dogal maa nekkoon si ay trop trop yu métti métti métti ba léegi sax. Mm-hmm. waaw ma bëggoon ku ma jàppale lool lool lool sax. Mm-hmm. waaw waaw waaw. tur bi nan la Alassane Ndiaye. waaw waaw waaw. Mm-hmm. baax na fan ngay Alassane. ngi Colobane. Colobane. waaye suba 11 euh, taala dina la wowaat baax na baax na rafet émission bi bëri jërëjëf yàlla yàlla barkeel barkeel jërëjëf jërëjëf sama soppe sëñ Kalidou Gaye maa ngi koy nuyu bu baax di ko siyaara Kalidou Gaye waaye Kalidou Ba moom it bu kañak sama wëllëre maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu soxna ya waaye di nuyu turandoo ba tamit alaaji Modou Ba wala Mara Ba fa tabarak la maa ngi leen di nuyu bu baax bisimilah ki si yoon bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa sant bi aja Seynabou ah, Ngom. sama jigéen soxna Seynabou. maa ngi lay siyaare. jërëjëf yal yàlla nangu tubarkel dama taal rajo bi rek dégg na jërëjëf Ngom. kontaan nañu ci amin amin amin gom gom an amin amin amin ngom. waaw rafet na trop jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Adja jërëjëf. jërëjëf soxna. incha allah baax na baax na. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf barakallah soxna Seyna bu Ngom yal yàlla barkel.

Euh, imaam Mohamed Niang maa ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara ak taalibeem taalibe Mohamed maa ngi koy nuyu bu baax bisimilah ki si yoon bi. salaamaaleykum sëñ Mara. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw jaamu ah, yow laa doon fàttaliku léegi de. <laughs> Ah, waaw fekk maa ngi fi yoon fekk maa. walaay ndeysaan waaw ñu ngi sant yàlla baax. yàlla na yokk bu baax sëñ Thierno. alhamdulilah alhamdulilah. waaw ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax. jërëjëf sëñ Thierno. ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf Diouf. kii kay moom ñu ngi jàmbat ñu ngi jàmbat nag ñu war a def délégation ñëw kër yi ak yooyu di waaj rek. wallaay ndeysaan wallaay. waaw may leen waaw nañu préparé rek bu ñu préparé après naaj jokkoo ak moom. incha allah yal yàlla jàppandal lépp. incha allah yal yàlla jàppandal lépp. ñaa ngi yàgg suñu kanam. amiin amiin ak sa njaboot bu baax. amiin sëñ Thierno. dëgg yàlla askan wi moom kontaan nañu bu baax a baax si yow. jërëjëf Diouf kontaan nañu bu baax si yow. jërëjëf jërëjëf Diouf Diouf ma ñoom taaram bu baax a baax. di incha allah dinañ ko dégg lu bëri. bu baax a baax jërëjëf. ana cuuraay bi mbaa duy manqué. waaw ah kay fan yi kay moom fan yi kay moom maa ngi waaj ñëw bitig ba sax. waaye kay moom fu mu toll nii moom. même démb démb démb rek. démb xale yaa may woo ne booy ñëw moom bul fàtte cuuraay bi. walaay ndeysaan yal na yàlla ah, ne ba. yal na yàlla barkeel. yal na yàlla barkeel <laughs> waaw jërëjëf. yàlla suñu borom yokk taw fi. amiin amiin amiin amiin Diouf amiin amiin amiin Diouf Diouf. jërëjëf lool si kolere gi. barakallah yal na yàlla barkel bismillah bismillah ki bi. salaamaaleykum salaam wa rahmatullah. yal na yàlla nangu te barkel. Hmm? dafa am. jafe-jafe. jafe jafe-jafe. wa xamna na ma ne ko jafé jafe xam naa du koy mën wax direct waaye suba nu jokk inshallah allah ban tour nga may jox. Oh, wàllu walu walu cuun. Hmm? walu walu ah fallu. fallu ku koy wax dang koy neexal nak dang wax al alxaaji fallu <laughs> jeuf señ fallu. Ah. suba on seer nu jokko inshallah allah. incha mhm. C'est le bu américain qui a été rek nga 33 889 83 30 je suis bi manager. C'est une jaar émission Wadduha c'est 95.5 radio municipale municipal de Dakar Bismillah ki si yoon bi là. bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa sant bi. Ba man la Ousmane. Eh, ba sëñ Ousmane. Eh, neen def ñooy sant bu baax a baax. Ah, jërëjëf Ba Ba. na yàlla nangu tabarkeel. di sàkku ñaante di leen ñaanal yàlla. jërëjëf jërëjëf sëñ ah, Ousmane aussi aussi di di feddali ko leen di ñaanal Abdou Aziz moomu génn léegi. wallaay ndeysaan wallaay. vraiment man man bëriwuma lu muy dugg ci groupe bi mais mais saa mu ci duggee rek mu ciy fekk mu ciy joxe leçon yu am solo. wallaay ndeysaan yal na yàlla fay ko. macha allah ah, yal na ko ñu ngi déggante mu ngi doon wax am na benn mbokkam bu tawat. Mhm. dëgg la dëgg la wallaay yal na ko yàlla yónnee si fa amiin amiin amiin yàlla yëkkati ñëpp vraiment kontaan nañ kontaan nañ ci yéen trop jërëjëf suñu Ousmane taxawaay bi jekk na rafet na macha allah jërëjëf jërëjëf yal na yàlla dëgëral taxawaay amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin njaboot bi sàmm ñëpp incha allah amiin amiin ba amiin amiin jërëjëf barakallah yal na yàlla barkeel yal na yàlla barkeel sëñ Ousmane Ba amiin amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf barakallah Eh, nu ngi nuyu ñu fi jaar ñëpp di ñaan yàlla yàlla fay leen yiw ak ñi nekkoon si yoon bi te jotunu aksi di ñaan yàlla may ñëpp barke duha xam naa incha allah comme médit yi li si des bariwul fàttali ñëpp rek ñi nga xam ne du ñàkk nuy soxla numéro boutique wadduha yi

ku bàyyi ko si pikin bu yéegee montagne bi rek porte bi mi jot la wala buntu gunas, su wacce rek boutique bi lay lol su de kuy am yene am jotay ak marasi Cissé su demee si mom dina ko won kër gi inshallah bes budul aljuma si katnu borom bi <coughs> su fekke point 1 la boutique point 1 77 lay def 200

Sur les Kermassar, Massar la si Soxna 77 733 97 20 77 733 97 20 moy Kër Pour bu Mbour Inch'Allah, nous ku si sur rek numéro.

frotté kéemtaan xam naa loolu moom kun si ko rek dinañ ko ko gën a leeralal incha allah ni ki ngeen fay amee frotté seytaane tamit te mooy bi ngeen xamoon mooy Wadduha Sifaa nga xam ne frotté la boo xam ne macha allah mu ngi tukki fu nekk la si àddina bi ndax barke bu si nit ñi gis te mooy frotté boo xam ne day dimbale képp koo xam ne sa guddi duy neex. wala ki nga xam ne dafa euh, war na lor yooyu yëpp daf si dox su jant sooyee rek macha allah bu ko frottee si yaramam yëpp macha allah yàlla dina ko dimbale guddi ga yëpp seytaane du ko jege ne kii cuuraayu seytaane bi it mm, mu ngi si boutique gi muy cuuraay boo xam ne moom it pour loolu la kër goo ko saxaatal rek guddi googa seytaane du fa jege si kàttanu yàlla cuuraay du fertiir mooy cuuraay boo xam ne day ubbi moo xam nga saxatal ko booy génn taxaw tiim ko walla nga saxatal ko sa liggéeyukaay niki noonu saabu boo xam ne day raxas cat saabu boo xam ne day ubbee yooyu yëpp mu ngi si boutique yi parfum boo xam ne day ubbee it mu ngi si boutique yi parfum de vertir ni ki parfum cat tamit mu ngi si boutique yi noonu ngeen fa mën a amee kiis pour ñi nga xam ne sa njaboot dana jàng bëgg nu bëgg seen xel gën di ubbeeku ni ngeen noonu ngeen fa mën a amee gàllaaj yu njaboot te mooy liy aar xelel ba nga xam ne macha allah kenn du sumi tubayam jigéen xale bu jigéen kuy tooyal lal mooy koo xam ne saa yu yeewoo rek lalam day tooy moom it am na fa ay gàllaaj pour loolu gàllaaju kër moom it macha allah loo xam ne day aar kër ba nga xam ne macha allah seytaane du fa sanc niki noonu gàllaaju oto bu ne oto yi daamar moo xam scooter ba la moo xam ba si mën a door dañ na doon luy daw rek moom it am na si boutique yi li ñuy wax toj liggéey liggéey bi ma doon waxtaanee léegi loo xam ne day toj lépp luy pas-pas si kàttanu yàlla it mu ngi si boutique yi luy faxas cat moom it mu ngi si boutique yi fa tabarakallah saafara boo xam ne bàyyere la tamit mu ngi si boutique yi yooyu yëpp fa mu ngi si boutique yi bu dee si garabu cosaan yi am na sirru na nga xam ne day dox lu bëree bëri si mbiru góor macha allah xam naa ko woote sibiti yi danañ na ko di gën a leeralal am na lumu lumu nga xam ne day traité siti ndoxu siti ballonnement manque d'appétit seere yooyu yëpp lumu lumu daf si dox saxtar nga xam ne taayal boo xam ne macha allah tey miracle lañ koy wax macha allah dinay gën a leeral bët dinay may appétit dinay dindi insomnie tamit fa tabaarakala yooyu yëpp saxtar daf siy dox ay ballonnement yooyu yëpp daf siy dox xuwa moom it macha allah nga xam ne day dimbale borom kër moom it mu ngi si boutique yi siyaada moom it nga xam ne day dimbale borom kër mu ngi si boutique yi li yu néew la si yoo xam ne mu ngi si boutique yi képp ku si woote si numéro yooyu ma joxe woon danañ la ko gën a leeralal. waaye ko dugg si wadduha point org tamit wadduha point org w ngay def a nga def ñaari d day def u def as a point org incha allah ku fa dugg information yu bëri mën nga koy am si wadduha numéro wadduha mooy 77 617 70 44 mu mel ni ki minit yi mu ngi si mu ngi cate li des sër heure jot wala jot na presque xanaa di ñaan yàlla rek lépp loo xam ne wax nañ ko fi te mu jub nu si sant yàlla bu baax tey ñaani lépp lu si doomu adama jëfandikoo yàlla defal ko si barke dinaa di wax ne nan di gën sàkk compte barke wolof day lee bari le barke la ko gën lu muy lu wér a wér a daara tuutul si yàlla na barkeel rek moo tax lépp lu si waay jël na si ko si yàlla defal barke lépp lu siy tolof tolof wala muy njuumte wala nu wax ko tudd noonu nu ngi koy jéggaloo comme ni ñu koy waxee rek yéen ba mooy ñëpp ñëpp mucc yéen ba mooy ñëpp yokk yàlla yombalal ñëpp tëdd ak tibb ak sango yàlla na ko yàlla defal. defal ko sa pee góllëre yi defal ko julit yëpp di santaat tey gërëm bu bu baax sëñ Malick Sidibé mi ni nokkaloon si technique bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu alhamdulilahi rabbil alamin gën sayduna muhammad yaa ma leen gënal yaa ma leen mënaloo muhammadu rasulullahi